jëf ya saar naka noonu mu dikk dëkku derb ak listar fekk fa taalibe bu tudd timote te ndeyam di yawut bu gëm waaye baayam di grek te mbokk yi nekk dëkk listar ak ikoniyom seedeel nañu ko lu baax pool bëgg nag mu ànd ak moom waaye ndegam yawut yépp ya dëkk ca walaaya ya xam ne baayam grek la woon mu jël ko xarafal ko bi loolu amee ñuy jaar ci dëkk ya jotti leen dénkaane yi ndaw yi ak njiit yi nekk Yerusalem joxe te sant leen ñu sàmm ko noonu mboolooy ñi di gëna dëgër ci yoon wi te yokk bés bu nekk bi loolu amee gannaaw xel mu sell mi aaye na leen ñu yégle ji kàddu gi ci diwaanu asi ñu daldi jaari wàlli firisi ak galasi bi ñu agsee nag ci wetu diwaanu misi ñuy jéem a dugg diiwaanu bitini waaye xelam yeesu mayu leen ko ñu romb nag misi dem dëkku trowaas noonu ci guddi yàlla feeñu pool ci ni nitu masadowan taxaw di ko ñaan ne ko ñëwal masedowan walli sunu bi mu amee peeñu moomu ca saasa ñu fexe jàll ca masedowan xam ni borom bi moonu woo ngir nu xamle fa xabaar bu baax bi noonu ñu dugg gaal ca trowaas jubal dunu samotraas jóge fa ca ëllëg sa ñu jëm teerub neapolis bi nu fa teeree nu jëm filip bi nekk dëkk bi ëpp maanaa ca wàll woowu ci diiwaanu masedowan di it suufu rom ñu toog fa ay fan bi bésu nooflaay ba agsee nag génn nañu ci buntu dëkk ba jublu ci wetu dex ga yaakaar ni barabu ñaanukaay la ñu toog fa nag di wax ak jigéen ña fa dajaloo fekk am na fa jigéen juy déglu tudd lidi di jaaykatu cuub bu dëkk ca tiir te mu ragal yàlla noonu borom bi ubbi na xolam ba mu nangu li pool di wax ci kaw loolu ñu sóob ko ci ndox moom ak waa këram ba noppi mu ñaan nu ne bu ngeen ma jàppee ni ku takku ci borom bi ganisi leen ma ci sama kër te mu duñu ci xiir am bés ba ñuy dem nag ca ñaanukaay ba ñu daje ak jaam bu jigéen bu rabu gisaane solu te ay sangam di jaruñu lu bari ci gisaaneem mu daldi topp ci pool ak nun di xaacu ne nit ñiy jaami yàlla aji kawe ji lañu ñoo leen di yëgal yoonu mucc muy def noonu ay fani fan waaye bi ko pool xajootul mu woññeeku ne rab wa sant naa la ci turu yeesu kirist génnal ci moom noonu rab wa ni mëll génn ci moom bi ay sangam gisee nag seen buntu wërsëg tëju ñu daldi jàpp pool ak silaas di leen diri leen ca pénc ma fa kanam njiit ya noonu ñu dëj leen fa mbaxanay menne naan yawut yi la jël nañu sunu dëkk di xamle ay aada yu ñu sañula nangu mbaa ñu di ko topp nun ñu bokk ci nguuru rom mbooloom it ànd ci dal ci seen kaw àttekat ya nag sumuli seeni yéere santaane ñu dóor leen ay yar noonu ñu dóor leen ay yar yu bari tëj leen sant boroom kaso ba mu wottu leen bu wér ginnaaw jot na ndigal loolu nag mu sànni leen ca néeg ba gën a ruq ca biir kaso ba jëng seeni tànk ba guddi gi xaaj nag pool ak silaas di ñaan ak di sant yàlla te ñeneen ñi nekk ca kaso ba di leen déglu ca saa sa suuf yëngu bu metti ba fondamaab kaso ba daanu bunt yépp daldi ne kulbét ubbeeku te jéngi ñañu tëj ne tëll di jeeku ci kaw loolu boroom kaso ba tiit ci ay nelaw gis bunt yépp ubbiku mu daldi bocc jaasoom bëgg a xaru yaakaar ne ñu tëj dañoo daw waaye pool wax ci kaw ne bu lor sa bopp nun ñépp ñu ngi fii bi ko boroom kaso ba déggee mu daldi laaj làmp ne saraax dugg daanu ci kanamu pool ak silaas di lox mu génne leen ci biti ne leen kilifa yi lu ma war a def ba mucc ñu tontu ko gëmal yéesu borom bi kon dinga mucc yow ak sa njaboot noonu ñu xamal ko kàddu borom bi moom ak waa këram gépp mu jël leen nag ci waxtu woowu ci guddi raxas seeni gaañu gaañu ba noppi ñu sóob ko ci ndox moom ak waa këram gépp bi ñu ko defee mu yóbbu leen ca këram jox leen ñu lekk mu bég lool ci li mu gëm yàlla moom ak waa këram gépp bi bët setee àttekat ya yónnee alkaati ya ñu ne boroom kasa ba yiwil ñaari nit ñoo ñu dem kon boroom kasa ba yëgal loolu pool ne ko àttekat ya jox nañu ma ndigal ngir ma yiwi leen ngeen dem léegi nag génn leen te dem ci jàmm waaye pool ne alkaati ya dóor nañu nu ay yar ci kanamu ñépp ci lu ñu wéerul ci genn ci benn àtte rax ca dolli tëj nañu kaso nu ñi jàmbur ci nguuru Room léegi nag dañu noo bëgg a sànni ci mbedd mi ci kumpa mukk nanu ñëw ñoom ci seen bopp gu gunge nu ci biti bi mu ko waxee alkaati ya yëgal àttekat ya la mu wax bi ñu déggee nee ne jàmburi Room lañu ñu daldi tiit ñu ñëw nag di leen defal ñu gunge leen ci biti di leen ñaan ñu génn dëkk ba noonu ñu génn ca kaso ba dugg ci kër Liidi ñu gis fa mbokk ya dëgëral leen daldi dem seen yoon